mbokk yi asalaamaaleykum dalee jàmm ci seen ay xibaar ji leen ko fas yéene dootale di seen mbokk seen xarit ñu dëkkaat ci seen chaîne bi nga xamante ni moo tudd Teuf Connection TV Sénégal li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi. muy wàllug rek am jaara muy kuréel ki nga xamante ne moo ëmb xaritu leeral yi ñoom nag jox nañ rek ci lu toll ci juróom-ñaari million ci suñuy koppar ñi ñi nga xamante ne ñoo ñàkkoon seen ay bakkan ci accident ñi nga xamante ñoo amee gaañu gaañu kenn ku ne jox nañ la ñetti million wàllum nit ñuy jëfandikoo lii di réseaux sociaux yi gouvernement bi nag ñoom fexe nañ rek xeex ñaaf def yooyu léegi ci wàllu rëccug Boy Djiné nag euh, benn complice moom yoon teg na ko rek loxo euh, Kébémer nag euh, tali bi daan lay lekk faataat ñaari nit ci wàllum lekk ay médicament yu nga xamante ne baaxul douane bi nag daan lay lekk def benn opération ci diggante Mbaling ak Thiaroye benn complice Boy Djiné nag lañu fekk lekk mu pendre boppam ca commissariat central ci wàllu wér-gu-yaram Sadio Mané moom may nag nguuru Sénégal benn hôpital bu nga xamante ne da ko tabaxoon rek foofee ca village nataalam mu nekk ci grève fin ci gannaaw alxames ji weesu Boy Djiné nag moom amatul rek benn kàttan fi mu ne mënatul yëngatu benn yoon ñu wax rek ci wàllub mbas milee ba tax na pèlerinage bi muy aju Màkka nag bi yoon rek nangu laatuñ ko ñi nga xamante ni ñoo fa fas yéene woon dem ci wàllub international nag Nigéria 53 personnes ñoo faat na leen ñu ko def nag ñeer ñenn ñu dul ñi nga xamante ne dañ sàcc ay jur li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi bu ngeen taaxirloo mu ñu naan lekk dal jàmm bu baax a baax ci seen ay xibaar comme ni ma leen ko waxee woon lekk ci bopp xibaar yi léegi nii muy kuréel gi nga xamante ne ñoo ëmb xarit yi nekk ci groupe leeral ñoom nag jël nañ lekk benn xaalis bu toll ci 27 millions dajale ko lekk ci ñetti xamante ne ñoo ñàkkoon seeni bakkan wante it ci ñi nga xamante ne ñoo ci amee ay gaañu gaañu kenn ku nekk jot nga si ñetti million club bi nag ñi ci bokk nekk na ay nit yoo xamante ne dañoo bëgg leeral ak seen ñi nga xamante ne mooy seen njiit li gannaaw lekk ba ñu dooralee seen liggéey boobu lee ñu wax ci leneen muy ministre de l' économie numérique ak télécommunication kii di Yankhoba Diattara nag moom xamle na nag ci altine yi ñu weesu bëgg-bëgg fu gouvernement bi du leen lu def lekk seen kent lay kàttan ci ñaawte fii ñu nemmeeku fan yi niñ koy jëfandikoo ci réseaux sociaux yi léegi. ñu wax tamit euh, ci leneen rekk muy euh, ci complicité bi amoon ci euh, administration pénitentiaire bi nga xamante ni rëccul benn yoon enquête rëccu kookee nga xamante ne mooy Boy Djiné loolee nag mu bokkoon na ci ki nga xamante ne moo ko yombalaloon ba mu rëccoon mu nekk rek kookee nga xamante ne soupçonné nañ ko ci ba tax na moom moo yónnee woon rek xaalis kookee di Baye Modou Fall ba tax na noonu rek lañ ko arrêté woon ci altine ji ñu weesu fële ca Dakar mu nekk rek euh, ñaar ñoo xamante ne ñoo ñàkk seen bakkan ak ñett ñoo xamante ne dañoo amee ay gaañu gaañu kenn ki moom sonn na lool loolee la bilan bi joxe mu nekk ab euh, accident bu am ci diggante benn camion ak car njeganjaay ci yoonu Lompoul ak Kébémer bi ñu xoolee nag temps yi accident yi bi ñu ko nemmeekoo fii ci Sénégal jot nañoo jàpp daal fukki ak ñeent yoo xamante ne ñàkk seen seen bakkan ci lu toll ci juróom-ñaari fan. doon naa leen ko wax sànq rek euh, ci bopp xibaar yi léegi mu nekk kenn koo xamante ne ci complice euh, ci rëccu kookee nga xamante ne moom la ñu fekk rek mu daal di prendre boppam ca commissariat central bu dakaar di Abdoulaye Faye moom nag euh, yoon daan na koy teg loxo rek gannaaw rek ba Boy Djiné mu rëccee woon dem fële ca Missira nekk ci région Tambacounda prisonnier boobu rek dañ koo fekk rek mu daal di xaru ba prendre boppam ci talaata ji ñu weesu foofee ca. commissariat central doon naa leen ko wax sànq ci bopp xibaar yi lii di nga xamante ne mooy brigade maritime bu Mbour ñoom nag jàpp na lekk ci lu toll ci 4,5 tonnes ci ay euh, garab yoo xamante ne baaxul biñ ko xayma nag ci xaalis mu ngi toll ci 510 millions 317 mille 816 ci suñu ay koppar mu nekkoo lekk ci àllarba yi ñu wees yemoo nag juróom-ñeenti fan ci weeru juin atum 2021 ñu defee ko rek foofee nga xamante ne mooy Mbaling nekk ci Mbour rek ak foofee di caaru ca Dakar gannaaw rek bi ñu doon amal benn opération boo nga xamante ne dañ koy tuddee lekk bouclage ci littoral boo nga xamante ne ay unité douanier ñoom ñoo ko xamle rek ci benn communiqué bu direction général des douanes mu dalaloon ko lekk ci alxames ji ñu weesu moom njiitu réewu Sénégal di son excellence Macky Sall Sadio Mané nag fas yéene na koo lekk may nguuru Sénégal muy hôpital boo xamante ne da koo tabaxoon lekk ca village boo mu juddoo di Bambali euh, loolee nag hôpital boobee biñ ko euh, xaymaa lekk ci xaalis mu toll ci trois cent cinquante mille euros muy kooke nga xamante ne mooy attaquant Liverpool boobule. ñu jàpp ko lekk gannaaw kenn ci ay complice am muy booy Djiné gannaaw lekk euh, bi mu bi muy xamante ni daf ko amaloon niki ci alxames gi lee muy lekk ab grève de fin mu ngir lekk ñaawlu niñ ko jàppee wante it mu ngi wax lekk moom Boy Djiné nañ ko daal di àtte lekk nu mu gën a gaawee. ñu wax lekk ci leneen tamit lu soxal ajin màkk gi ñu wax ni lekk bii nag mooy ñaareelu at ba nga xamante ne nanguwaatuñu aj gi lee loolee nag mooy ñi nga xamante ne ñooy jóge ci yeneen réew yi nekk ci àdduna wërtal këpp aj yi nag benn yoon duñ ko nangu ndaxte dara waralu ko lu dul mbas mi leen di covid 19 ñu wax wàllu xibaar rek ci bitim réew lu toll ci 53 personnes lañu fekk rek ñu faat leen ci benn attaque buñ doon amalee ci état bu Zamfara u nekk féete ci nord ouest bu Nigéria bu sukkandikoo rek ci ay seede yu waa police ak ñenn ci ay euh, dëkkandoo ñu wax ni daal faat yooyee ñu ngi ko amalee rek ci ñoo nga xamante ne ay ñu ngi toll ci ay fukki nit te it ñoom nag ñu ngi gànnaay woon rek daal demoon ca village yooye di Kadawa ak di wataab mbokk yi fii lañuy yamal yéen daal ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo ma ñëw yi ci fàttali ci li gënoon fës ci bopp xibaar yi waxtaan waxtaanee woon nañ fi li nga xamante ne rek mooy wàllug njaal rek muy club bi nga xamante ne moo sos xarit yi bokk ci leeral ñoom nag jot nañu jox rek juróom-ñaari million ñi nga xamante ne ñoo bokk ci ñoo faatu woon ci li nga xamante ne rek mooy accident boobu waaye tamit ñi nga xamante ne ñoo amee ay gaañu gaañu ñoom jox na leen kenn ku nekk ñetti million ci dañuy jëfandikoo li nga xamante ni nag mooy réseaux sociaux yi fan yi lëmbee na lool réew bi ba tax na noonu la gouvernement bi fas yéene xeexee mbir moom leen ci wàllu rëcc ci nag booy jinne moom am na benn complice ba nga xamante ne yoon teg na ko loxo Kébémer tali bi daan ne faataat lekk ñaari nit ci wàllub garab yoo xamante ne nag baaxul douane bi def na benn opération rek ci diggante Mbaling ak Caaro yi benn complice su Boy Djiné tamit euh, fekk nañ ko rek mu pendre boppam ci commissariat central wante ci wér gu yaram waxtaanee woon nañ ci li nga xamante ne mooy Sadio Mané may na lekk nguuru Sénégal benn hôpital bu nga xamante ne da ko tabaxoon rek ci village boobu lee di yi ñu wax rek tamit ci leneen muy grève de la faim euh, bi nga xamante ni amoon na ko ci alxames ji ñu weesu Boy Djiné nag mujjee na sax ba amatul benn yoon kàttan ba tax na mën woon a benn yoon ci li nga xamante ne nag mooy wàllu mbas mi bi yoon aji màkk gi du am ci at mi waxtaane woon fi tamit ci Nigéria muy 53 personnes yoo xamante ne dal leen a faat te ñu ko def du ñenn ñu dul lekk ñoo xamante ne dañ doon sàcc ay jur lii lañ fi waxtaane woon ci xibaar ñu mbokk yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm euh, ki leen ko doon jottali seen bokk seen xarit Mintou Ka seen chaîne bi nga xamante ne mooy Teuf Connection TV Sénégal ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bi di leen jox dig daje dimanche incha allah ci yeneen xibaar ñu leen di ñaax tamit ngeen gën a abonné suñu chaîne bi nga xamante ne mooy Teuf Connection TV Sénégal seen chaîne YouTube ngir ñu indilaatal leen ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf